du waxagul de wax na rek. waaw ba tey nekkuma ci formalisme bi ngeen mm-hmm. man li ñuy wax mooy li defar réew mi te wax na ko. <laughs> waaw euh, bon c'est pour Pam bien sûr. commenter la une de Source A mm-hmm. bon donc il a commencé par la GIGN effectivement euh, <laughs> El Malick a raison parce que. en fait bàyyi wax la GIGN. Euh, parce que groupement. groupement d'intervention nationale. alors donc wax dëgg. El Malick a raison c'est un réflexe. ah. il a raison. oui non euh, que ni dañ ne woon dafay garder Sonko man ne woon naa leen ne ah mënul nekk. d'ailleurs euh, premier. non man dama def reportage si ñoom trois unités spéciales ci la bokkoon loolu mu tax xëy na mu ñëw sama xel. Euh, léegi euh, keroog bi mu doon def discours bii nii sax gars yi ñu ngi doon wax. naan pourquoi gendarmerie kii wuñu ko mën a leen yëkkati leen xottu gerte rek jëmale ko Diomaye di ngeen xam ne mu ngi fa parce que bii nii sax euh, c' était Birima ma qui était à la, à ses côtés et Birima Fall c' le chef euh, du GIGN donc ak. écarté ou pas. non ah, ki ma doon wax loolu dafa juum. mais mais mais mais mais mais euh, gardé bu gardé wul Sonko. ce ne serait pas aussi parce que c' est ici que euh, BIP doon gardé Adji Sarr alors donc. je dis trop na ko demander. non y' a loolu du scandale du tout bu doon bu doon GIGN dafa gardé Sonko alors malgré bi gardé na Adji Sarr euh, barki démb dama leen ne woon mu ngi ci réew mi mais nekkatul ci réew mi nag fii may toll nii moom dem na <laughs> et puis c' est pas scandaleux non plus Adji n' est pas sous contrôle judiciaire interdire ñu ko sorti du territoire donc euh, gars yi pourquoi ils en font scandale pour dire que dem na dem na bref léegi pour revenir ci euh, le grand ménage là je pense que ni am na ci yoo xamante ne. peut-être que nit ñi ñu ngi euh, def commencé def euh, ay point d'interrogation sur euh, les fonds politiques mm-hmm. mais les fonds politiques kenn mënu ko dindi kenn mënu ko supprimer parce que dafa bokk ci catégorie yu ñuy wax les fonds spéciaux am na yoo fonds yoo xamante ne euh, ci luy doxal réew la bokk mais du ñu ne lii la lay jëriñam lii mooy njëriñam par exemple mission de espionnage en Gambie fan lañ koy bind hmm. waaw waaw waaw loolu laa moo tax ma ne am na waaw catégorie boobu non catégorie boobu lañ koy dugal am matière budgétaire c'est ce que je veux dire ci catégorie boobu lañ koy dugal hmm. donc kon fonds politique mooy fonds spéciaux alors donc am na am na am na fonds yoo xamante ne am na euh, yenn euh, dépense yoo xamante ne mais kenn mënu la wax ne euh, lii dañ koy bind par exemple Sénégal buy jënd ay armes buy jënd ay matériel de la gendarmerie mais yooyu yooyu yooyu kenn mënu koo wax e da koy e xam da koy xam da koy xam mais vrai IGE e da koy xam qui n'est pas sous le contrôle du. je sais IGE bi def passation de service bi. Mhm. xam nga xam nga passation de service de gens la formalité la mais am na yu bëri yu nekk ci suuf euh, IGE day càmbar dossier par dossier taxaw jàllale entre entre les deux laaj sortant bi euh, lan moo waral lii. wax ko entrant bi et cetera donc l'IGE fait un travail te loolu passation de service yëpp la donc kon euh, ñu wàññi ko yoon la parce que daf ci amaale loo xamante ne président da koy dugal ci poosam rek ku ñëw mu jox la non non euh, en 2019 lañ waxoon supprimer ma ne woon loolu mënul nekk c'était pas possible parce que loolu euh, mooy comme genre mission yi. dañ ko maintenir. Hmm? dañ ko maintenir non je ne pense pas seen engagement. jeune ne pense nga xoolaat ko non du du ma ko xoolaat xam nga lu tax. gars yi dañ def attention ci projet bi euh, candidat Diomaye yoroon le projet initial a été modifié. après que yeneen alliés ñëw ci biir danoo apporter benn plus-value boo xamante ne xaw na changer euh, le postulat de départ donc projet actuel bu Diomaye amoon bokkul ak projet bi ñu présenter woon euh, foofu noonu ban am na benn hôtel bu ñu nekkoon di woon présenter le projet la presse était là-bas pour couvrir ah loolu changé na loolu foog Sénégalais xam ko yeneen yeneen yeneen yeneen euh, alliés yi ñëw apporter nañ waxtaan nañ am nañ leneen luñ dolli donc ce projet là bokkul ak ba léegi li nga xamante ne moom la Diomaye war a tey di daaw et puis je Abbas ci li mu wax muy la loi de finance 2024 mais déjà voté loolu voté dañ ko ba pare. loolu Diomaye mënatu ci dara ah. ci mën na ci mais mën na ci dara wax wax leen LFR rek mais oui non non non même le président. mais même LFR bi pour leeral mbir yi quoi. non non non mais même LFR bi pour mu am dafa am condition yu tax muy mën na am. mais n'oublions pas que le président Diomaye n'a pas la majorité à l'Assemblée mm. déjà ouais. il y a 82 députés yoo xamante ne qui sont dans l'opposition le Benno Bokk Yaakaar les 25 de Khalifa Sall xamoo fu ñu bokk peut-être qu'ils sont aussi dans l'opposition euh, bon waa wàllu xëy na parce que ils ont rejoint mais de toute façon il sera obligé de gérer la euh, par amul boo majorité confortable bu koy permettre non amul benn majorité sax moo li li officiel mooy les vingt cinq députés de sa formation politique passive. sinon pour les ñaata ordonnance la am droit ci année bi. non mu jarul année bi nag. jarul non non un président la République qui vient d'être élu il a combien il non c'est pas limité non c'est pas limité. Euh, ci la. non il en a droit à quatorze. non defar naa la dissolution de l'Assemblée. defar naa non non même même non non non loolu laa li ngay laajte nii c'est important. loolu laa defar naa ci année ci at. defar defar naa sama wax la rek baal ma wax. Sénégal yi déglu rek. waaw waaw seen wax yi du mën. Aliou nag xoolal. Euh, pardon waaw xam nga tamit li nga doon kaas léegi. Euh, paasam. Euh, non dal doon dolli dal dama doon dolli rek xam man kii moom lu muy doon noonu amul si polémique moom dama doon dolli rek parce que ordonnance ngay wax ni il faut que ñu xam ni même sans assemblée nationale parce que loolu gars yi dañ ko war a xam ñi lay seetaan il faut que sans sans assemblée nationale kii le président nouvellement élu am na droit président Macky Sall en 2012 il est élu le 25 mars juin foog naa la ñu euh, defaat euh, législative. donc entre temps il gouverne par mun na gérer mun na gérer affaire urgente yi mun na ko gérer avec les ordonnances li ngay wax nii dama ko wax ba pare dama ne il peut gouverner par ordonnance. waay loolu dama ko wax ba pare nga dagaat ma pour ma répéter encore la même chose alors donc kon. Euh, de te te ça ne passe pas sur sax déjà parce que j'en suis sûr et le président Diomaye en est sûr en septembre dañuy dissoudre assemblée bi. Euh, parce que oui il ne faut pas continuer comme ça euh, donc loi de finance bi dinañ ko rectifier réajuster parce que aussi euh, y les élections avec autant de péripéties yoo xamante ne euh, budget ministère de l'intérieur euh, ni ñu ko prévoir ak ni mu mujj demee bokkul euh, ça aussi c'est une réalité maintenant am na loo xamante ne dañu ko yàgg wax fii nii. Aliou yàgg ko souligner di tour table bi ne euh, pouvoir président dañ ko war a wàññi et effectivement dañ ko war a wàññi parce que sinon il devient un demi-dieu nommé aux emplois civils et militaires je pense que ni euh, loolu dafa war a dakk du coup quand il euh, annonce avec certaines directions générales appel à candidature à là j'applaudis oui parce que euh, bon respecter critères yi ñëwal ba après président xool ci ñi nga xamante ne à compétence égale mu jël ci moom selon euh, la confiance bi mu accordé tel ou tell donc je pense que ni par ce remue-ménage là euh, le président Diomaye donne à la rupture un contenu spectaculaire donc euh, te un signal fort boo xamante ne je pense fii lañ ko doon xaar léegi nag Euh, li Abbas wax léegi fii dafa am solo ñu taxaw ci mu ni euh, bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu yàqamti. nanu daal lépp mënul sotti léegi léegi. lépp mënul sotti léegi léegi euh, wala sax ñenn ne am na sax yu mënut sotti alors cinq ans la am programme la ñu proposé moom it sur cinq lu mu ci mënut def waru ko ci woon def ci programme bi xaw ma ndax dégg nga ba il nous a proposé un programme de cinq lu mu mënul def ci cinq boobu noonu ñu ko woon proposer ah, déedéet si si euh, baal ma ñëw rek xaw ma ñëw c'est-à-dire bul jaawale projet bi ak programme bi programme loo programmé da programme def lii ci sa mandat yow xam nga ne mandat bi cinq la bu dee lii xajul ci mandat bi da nga naan dinaa ko tàmbali ba fii et l'état étant une continuité dañuy continuer le BRT je pense que nuy fonctionner lagul kenn sañul ñëw ne projet Macky Sall duñ ko yàggali ça va continuer euh, dafa am lu Cheikh Yérim Seck mësa laaj Ousmane Sonko mu ne ko li ngay wax euh, lu nice la quoi ce discours vraiment macha allah mais est-ce que xam nga ni yow euh, lii ngay wax ni yëpp boo ñëwee au pouvoir lii yëpp doo ko mën a def c'est-à-dire ay wax la nii rek ay gént la quoi mais boo demee ba confronté wu avec les réalités du pouvoir di nga xam ne mënut nekk. mais li Ousmane Sonko tontu moo ma neex te moo am solo mu ne ko les réalités du pouvoir yooyu noonu man Ousmane Sonko dama gëm ne waxi ku narul respecter engagement am la mais réalité du pouvoir amut. xam nga d'accord naa li nga wax mais nit ki mën nga am bébét. mais dans la gestion des affaires du pouvoir day am ay ndom tok ay contraintes tout à fait. moom foofu laay waxee. man foofu laay waxee. xam naa man moo tax ma ne la d'accord naa. ni moom xalaat na gëstu na yaakaar na ni ci juróomi at yi lii dinaa ko def. xam nga xam nga man li tax ma adapté. Euh, par exemple ma xaaral rek dama lay jox rek juste benn exemple mën nga jël un important programme dans le domaine de la santé nga doxal un an nga gis ni que ni ci wàllu wérgu yaram am na lu gën a sooxe te bu demee day lor éducation lan ngay def. jeex na foofu lay waxee moo tax ma ne la li mu wax. ànd naa ci. Mhm. mais moom lépp mënta sotti. man gëm na ci jamono yooyu non dama d' accord ak yow. ci ah, loolu kon kon baax na dama d' accord ak yow ci seulement euh, li ma dul d' accord la loolu bokkul ak yow lii nga wax nii. Hmm. c' est à dire la logique qui voudrait que ñu ne les réalité du pouvoir moo tax les promesses électorales ne sont pas tenues loolu euh, Ousmane Sonko daf ko wax ma d' accord ko que ni am na ñoo xamante ne bañaa a seeni seen i moom moo tax ñuy làqatu ci. réalité du pouvoir président Macky Sall dafa diggoon jeunes yi cinq cent mille emplois ñëw premier mandam defu ko ñu ne bon pourquoi defu ko les réalité nangam nangam ma ne réalité bi la war a mën a tax nga jël TER nga jël BRT boo ko defoon tamit ci urgent boobu noonu peut-être qui est moins moins moins spectaculaire moins populiste et très bénéfique pour la population donc koy def donc kon je pense président Diomaye c'est un président qui a les coups des wax dëgg yàlla kooku moom moom amul pour naan ñu les réalités nangam Diomaye euh, ne otage de benn lobby ah. askan wi kese il ne doit son salut que le qu'au peuple sénégalais donc kon amul am am d'affaire coalition politique lobby maraboutique kenn hmm. Abbas tamit dafa wax lu am solo muy hmm. orientation nga nit ki moo leex tamit fan lay kabaar non wax nañu ko ba pare daf ko wax moo tax ñu fal ko. loolu laa wax c'est-à-dire c'est-à-dire. déglu woon non Pape Moussa mën a tël nit te doo xam fi ma jëm. bañ a ko tël ma lay tël moo fa jëm yow jëmoo ko. <laughs> non non da nee na. kon kay xam tël nañ ko li may wax dama si mën a jaaraat dama ne Abbas nee na. waaw li am solo mooy orientation. waaw waaw da ma war a xaar ma àggali nga xam lan laay wax.